rafetal seeni jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne ahmad solo na ko ak abu daawud mu ne akmalul muminina imaanan axsanuhum axlaaqan ñi gën a mat ak gëm ci jullit ñi jullit ñi ci gën a mat la gëm yàlla mooy ñi ci gën a rafet jikko kon boog yow jullit bu góor bi yow jullit bu jigéen bi jéemal noo rafetale say jikko yonent bi wax na ci beneen xadis boo xam ne buxaari moo ko solo mu ne inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyaama axaasinukum axlaaqan bokk na ci ñi ma gën a bëgg ci yéen yonent bi nee na bokk na ci ñi mu gën a bëgg ci nun ñi nga xam ne bu àllaaxiraa ñoo koy gën a jege fu ñu toog ñi gën a rafet jikko yaakaar naa bu àllaaxiraa ku dekki gis sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa sa xel dina dal de di nga kontaan boo toogee fu ko jege lool xanaa da nga am yaakaar de soo bëggee bu àllaaxiraa nga toog fu jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ñi koy gën a jege yawmal qiyaam mooy ñi gën a rafet jikko kon boog jullit bu góor bi ak bu jigéen bi day jéem a góor góorlu ci rafet jikko mu ngoog na seet mboolem jikko yu rafet yi yàlla bëgg mu jéem cee yar boppam moom jigéen bi moom góor gi yar ci boppam di ko tàmm tàmm lu ba tàmm ko ba xam ne bu ko dee defati sax day fekk tàmm na ko nekkatul ci moom takallu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la bëgg lu demee ne dëggu dëggu ci wax ak ci jëf nit ki day tàggu ci dëggu xam ngeen ni dëggu ci wax ak ci jëf lu jafe la lu néew la léegi moo waral sunu problème yu bari yi ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk nañu ba tàyyi nañu dëggu mu ngoog yonent bi nee na maa ngi leen di dénk dëggu ndaxte dëggu day yóbbu nit ci jëf lu baax jëf lu baax day yóbbu nit ajjana maa ngi leen te nit ki du dañ di wax dëgg di wax dëgg di wax dëgg ba yàlla ne nañ ma ko bindal ci liste waxkatu dëgg yi yàlla na yàlla dimbali ba nu bind nu ca liste waxkatu dëgg yi yonent bi teg ci ne maa ngi leen di moytuloo fen ndax fen day yëbbu nit ci lu baaxul te lu baaxul day yëbbu nit safara te nit ki du deñ di fen di fen di fen di fen ba yàlla wax ne diw mii bindal leen nu ko ci liste fenkat yi moo jaar kenn ku nekk ci nun na wax ak boppam diggam ak yàlla seet ba xam ndax moom yaakaar na ne ci liste wax ko ci dëggee la ko yàlla bind am liste fankat ya ndekete kon mboolem ñun ñi fi ne ci aw góor ku jigéen ndekete bu demee fa yàlla kenn ku ne bind nañ la ci liste liste wax ko ci dëgg ya mbaa liste fankat ya kenn ku ne na laaj boppam bu mu nax boppam fu mu yaakaar ne fa la ne te liste wax ko ci dëgg ya am liste fankat ya boo bëggee tontu laaj boobu seetal ba xam semaine bi ndax kan nga ci semaine bi ndax fen nga ci benn yoon ndax ñetti fan yu nekk ndax fen nga ci koo xam ne ki semaine semaine bu ne nga fen weewu na nga fen ñeenti yoon ah kooku kat ab fenkat la ah koo xam ne ki weer wu ne nga fen ñeenti yoon kooku fenkat la kooku kooku bu ne bu ne yaakaar naa ñu nga bind ci ci wax dëgg yi da ko wax rek waaye yaakaaru ko yaakaaru ko kon nag kenn ku ne ci nun day seet koo ci xam ne kii xam nga ne yow da nga fen ah tàggatul ci bàyyi fen rek tàggatul daf koy tàggatul daf koy tàggu képp ku fa jikko ju baax jéem caa tàggu lu mat ñeent fukki fan yàlla nee na dana la ci dimbali ba mu doon sa jikko kon boog jikko yu baax yi jil bu góor bi ak bu jigéen bi da ciy da ciy góorgóorlu di ko tàggu te fen am na ci góor ñi waaye mbokk yu jigéen ñi nañ ma baal pour mu wax ne fen am na ci ñoom bari na lool sax mu nga bari na lool kon boog fen góor da ko war a bàyyi jigéen war ko bàyyi jigéen dina yow jigéen bi nga xam ne yaa ngi déglu te bëgg a xam jil bu jigéen nu war a mel na nga xam ne jikkoy jullit bu jigéen fen bokku ci jikkoy jullit bu góor fen bokku ci kon boog su fekkee daa nga fen yow ku jigéen ki na nga fas yéene bàyyi fen fur na nga fas yéene dootoo fen mukk mu ngoog tàggatul ci wax dëgg def dëgg tàggatu ci maandute tàggatu ci def lu rafet tàggatu ci jikko yu rafet yépp tabe toroxlu am yërmande mboolem xeeti jikko yu baax yi ab jullit bu góor ak bu jigéen ba da ciy tàggatu di ca góor góorlu ba man ko tàmm ko mu doon jikkoom bu ko defee jikko yu bon yi nga di ko jéem a bàyyi jikko yu bon yi lu demee ne ñaaw lu demee ne fen waaw lu demee ne fen lu demee ne lekk lu xaraam lu demee ne ngistal lu demee ne reetaan lu demee ne jëw mboolem xeeti jikko yu bari yu bon yi ab jullit bu góor ak bu jigéen day tàggatu ci bàyyi ko su fekkee daana ko def mu fexe bu dudu ko defati loolu yàlla bëgg yàlla nee na wala tastawi alxasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun xamim wa ma yulaqaaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaaha illa du xadin azim surtout Fassilat yàlla nee na lu rafet ak lu ñaaw yemuñu yàlla nee na lu rafet ak lu ñaaw yemuñu idfa billati hiya ahsan yow jullit bi fu lu ñaaw jógee jëm ci ci yow na nga ko défendre lu rafet dégg ngeen yow jullit bi fu lu ñaaw jógee wut ci la na nga ko jeñe lu rafet idfa billati hiya ahsan loolu mooy lan mooy bu la nit defee lu bon yow def ko lu baax waaye ku ma ko dobit mu rokkin la ko ab jullit sañul lool ku ma ko def ma fayu ab jullit sañul lool ab jullit soo waxee ci moom lu ñaaw mbaa nga def ci moom lu ñaaw moom day wax ci yow lu rafet te def ci yow lu rafet loolu moom la alxuraan bëgg bu ko defee loolu boo ko defee mooy li gën a gaaw ci say noon yépp nga soppi leen walbati leen ba seen noonu googee deñ bu la nit bañee bu fekkee da ngaa dend ak ku la bañ lool dalaa añaane mbaa dalaa bañ del def ci moom lu rafet rek waaw del def ci moom lu rafet rek soo amee may ko boo xamee wax ko bu xewlee seeti ko bu la jànnee demal ngir yàlla mu ngoog bu ko defee alquran nee na doo wóolu lu may mu wëlbati ko doon taf soppe fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamid waaye nag alquran teg na ci lu am solo nee na wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru nee na waaye nag muñkat yi dëgg ñoo mën a def loolu ak muñkat dëgg moo man dem ci mbokkum jullitam di ko wutal ak di ko waxal lu rafet te fekk kooka lu bon lu ñaaw la ko lebal sa mbokkum jullit mi la lebal lu ñaaw sa mbokkum jullit mi la jëw kenn ci yéen bu toogoon ba mu yàgg mu dégg sa këram ni Abdou Aziz Touré day jëw na ko wax na ci moom lu ñaaw wax na ci moom wax ju bon moo nu muy def kenn ci yéen bu toogoon koo xam ne kii xamante na amante nañu mu jékki-jékki dégg ne Abdou Aziz Touré da koo saaga da koo jëw da ko wax wax ju ñaaw a ñaaw da koo sosal faral ko nu muy def day jël aw laam mu ñam di xas Abdou Aziz Touré day dem akki ko ne ko wax dig ma waxal alquran waxut loolu mag ñu baax ñi ak salafu saalih ak saxaaba ak yonent yi ñi ñu baax ñi ku leen mos a def lu mel noonu dañuy jóg sol seenu dàll ñëw fekk la fa nga ne jégglu la wax la wax ju rafet sama papa mooy nekk ba mu nekk ca daara ja nee na benn bis dafa am leen teg mbokkum taalibeem xanaa ñu wóot ni kaw ay wax mbokkum taalibe bi daal dafa ñëw fekk ko fu mu toog da ko da koo xas ba saaga ko saaga nee na xale mi gi mu yoroon ci bind nee na xale mi gi taxawul sax taxawul soo kon ni mini mi ni mu àgg mu bàyyi taalibe bi mu taxaw wax lu ko neex ba wax ji àgg mu dem yoonam moom tam mu continué ab liggéeyam ba liggéey ba àgg mu jóg dem wuti ngàddu gura fekk ko fa mu ne jox ko ko ne ko baal ma ak maal tooñ nekkul ci seet ba xam moo tooñam tooñul dafa nekk ci tatbiq aaya bokk ci kitab allah ab jullit noonu la war a mel maanaam xeex la rek loolu xeex la bu leen yaakaar nag ka doon def loola saaga yu daa méttiwul ci moom ah kay aw saaga métti na ku ne waxuma laa kalaat tooñ bu nekk di la saaga saaga yu métti na waaye daf koy muñ ngir yàlla kon donc yow jullit bu jigéen bi bu fekkee sa wujj dalaa saaga su fekkee sa sa njëkke dalaa wax dalaa jëw wax la wax la wax dina naqari te jigéen ñi bari na lu ñuy jëw nañ la ko baal bu fekkee sa mbokkum jigéen dalaa jëw wax la wax du la naqari yow bu ko jëw bu ko saaga fabal sa butéelu parfum fabal sa butéelu kareem fabal sa ñaar fukki dërëm jox ko ne ko jéggal ma te baal ma xaq te loo dégg ci lu ñaaw xamal ne du man loolu mooy hadi nubuwa loolu mooy tàggat sa bopp ci jikko ju baax jafe na nag moo tax alquran de waxu ma yulaqaaha illa alladina sabaru muñ kat yi dëgg ñoo ko mën a def waaye yàlla nee na képp ko def dencal naa la yool bu rëy rëy rëy wa maa yulaqaaha illa zu xazin azim kenn du ko def lu dul koo xam ne kii am na chance am na wërsëg wu rëy fa yàlla yàlla ci yàlla dimbali kon boog jil bu jigéen ci ay jikkoom day jikko woo mboolem jikko yu baax yi day moytu mboolem jikko yu bon yi day moytu fen moytu rëy moytu ngistal moytu reetaan moytu jëw moytu wor ak wuruj sama borom yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu jtanibu kathiran min alzanni inna bacda alzanni ism wala tajassasu wala yagtab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an yaakula laxma axihi mayta fakarihtumuuh wattaqu llah inna allaha tawaabu rahim yàlla nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen moytu lu bare bare bare ci ay njort ndaxte kat yenn njort yu bàkkaar la ñaaw njortu baaxul sa mbokkum jullit nga jékki-jékki gis ci moom loo xam ne comme fax mu woo ko xamoo nu mu demee nga daal ne ko dem lee nangam la daal koy taawil taawil bu ñaaw jott ci moom lu ñaaw loolu la alquran di bañ inna ba'da zanni ismu yenn njort yi bàkkaar la nit ki doo jott dara njott li képp mu am ci bàkkaar yal na nu yàlla baal yal na nu yàlla baal alquran teg ci ne wala tajassasu bu leen reju sa mbokkum jullit moo xam ne jotewu leen dara ngay dox di lëñtu ay awraam di gën a xam ay mbootam loolu alxuraan da koy tere wala yaxtab baadukum baadan bu leen jëwante xam ngeen ni jëw feebar na léegi boo xam ne daa tasaaroo bari na lool yomb na lool jafe na nit ki toog lu mat ñetti fan yu mu jëwut wala mu toog fu ñuy jëwe ab jullit di jëw ab jullit bu toogee ci barab dégg ñu tàmbali jëw mbokkum jullitam day daal di weddi boo toogee fi barab ñu ne ab day doom nangam ak nangam teg ci beram lu ñaaw yow ma ko fekke ne ah déet mbokk mu ma koy lu baax rek la xam ci moom yal na bon seereel lu rafet ci moom ndax delloo ko jëw bi ñu koy bëgg a jëw te li ñuy jëw ab day suré moom mu ko def du tee muy jëw ab day suré daa bon li may wax dëgg la kon nag jëwuma ah kay bu fekkee bu ko ab day suré déggoon wax dina ko naqar rek jëw a ngoog benn bis yonent bi dafa toog sallallahu alayhi wa sallam ak kenn ci ay soxnaam ba mu yàgg am jigéen ji fa ñëw bi jigéen ji ñëwee nuyoo wax soxla ba jóg dem bi mu demee nag xam naa soxna si xam nga sunu yaay yal nañu yàlla baal jigéen ñi ñoom seen monde bopp la ñu am mu jëkki-jëkki ne un ndaw gàttaay bu rëy ah ndaw gàttaay bu rëy yonent bi ne ko jëw nga ko de jëw nga ko de bakkaar bakkaar bi jóge ci baat boobu nga wax mbooleem géej yi ci adduna bi bakkaar bi saf na leen mbokk yi dëgg leen soxna si néewul néewul njaalookat la néewul sankat la néew dana dana daw gàttaay bu rëy dafa gàtt la wax loolu mooy jëw bi dafa gàtt ji mu wax ci la bàkkaar sosoo boo xam ne saf na mbooleem géej gi àdduna bi ndax ñu xam jëw ni mu gaawee jëw ni mu yombe jëw ni mu dangereux jëw ni mu bone ndax ñu mën a bàyyi jëw te jëw léegi dafa bari lool dafa yaatu lool moontin ndaw sa soxna sa day tontu na yonent bi dana ko man jëw mu ko leen wax dëgg la dafa gàtt yonent bi ne ko li nga wax dëgg la moo tax muy jëw bu fekkoon ne li nga wax da dul dëgg boole ci kon day boole doon jëw ak doon fen sor sor ndekete kon di nga jëw nit boole jëw ko ak soral ko mooy bi nga waxee ci moom loo xam ne du dëgg defu ko melokaan wu ñaaw wu nekkul ci moom nga waxal ko fu mu nekkul te bu ko nekk bu ko déggoon du ko neex te du dëgg kon jëw nga sor nga muy ñaari bàkkaar yu bokkul bu fekkee li nga wax nag mi ngi ci moom dëgg la waaye bu ko déggoon du ko neex kon jëw nga mbokki jullit yu góor yi ak yu jigéen yi nañu bàyyi jëw te xam ne jëw baaxul te jëw bari na lool ci nit yi jigéen yi nag jigéen ñi bàyyi xel naka noonu tam reetaan yàlla wax na ci alquran yaa ayyuha alladina amanu laa yasxar qawmun min qawmin bu bu bu bu aw góor reetaan aw góor asa an yakunu xayran minhum ku dem lee ci lee reetaan da la gën mu teg ci ne wala nisaaun min nisaa bu aw jigéen dem di reetaan aw jigéen asa an yakunna xayran minhunna ku dem lee jigéen ñi ngay reetaan moo la gën yow jigéen ji koy reetaan ah kon ndekete jigéen ji wóorta reetaan wujjam ndeke jigéen ji wóorta reetaan njëkkeem ndeke jigéen ji wóorta reetaan mbokkum jigéenam wóorta reetaan góor wóorta reetaan jigéen reetaan baaxut reetaan baaxut ci nga reetaan ku dem lee moo la gën waykat ba nee na xamal ne saa sa xamal ne saa soo defee ne xaj ba gën nga ko moo la gën xanaa ci ngay reetaan da nga yaakaar ne yaa ko gën da nga yaakaar ne yaa ko dàq da nga yaakaar ne yaa ko gën moo tax nga koy reetaan ginnaaw yaakaar ne yaa ko gën rek kon xamal ne moo la gën mu ngoog kon boog asa an yakunna xayran minhunna alquran teg ci ne wala talmizu anfusakum bu leen ñaawalante bu leen ñaawalante ci seen biir mu ngoog ñaawal sa mbokkum jullit mooy ñaawal sa bopp moo tax mu ne wala talmizu anfusakum bu leen ñaawal seen bopp loo teg ci wax ju ñaaw ci sa darub mbokkum jullit mi ngi mën a sab der nga ko teg mu ngoog kon boog ñaawalante ak ci ay tur wala ci ay wax loolu alquran ne nañ ko bàyyi biisa lismul fusuuqu baada al iman gëm yàlla suuf doon ab jullit ba noppi jóge fa def ay caay-caay yu mel nii alquran nee na loolu bon na yàlla nee na loolu bon na lool fa man lam yatub fa ulaayika hum zalimuna mais ñi tuubul ñooy tooñkat yi kon boog jikko yu rafet yaa ngi noonu jil bu jigéen day góor góorlu ci jikko woo ko lépp te li mu ma lépp da xaju si waaye dama cee laal aslaf rek pour xiyaas man koo àggale jikko yu ñaaw yaa ngi noonu li mu ma lépp da xaju si waaye dama ci tudd aslaf ñu mën koo àggale jil bu jigéen comme bu góor bi daa war a jàng ci téere yi diina ji ba xam jikko yu rafet yi yàlla bëgg ku ni jikko woo mu jikko woo ko xam jikko yu ñaaw yi yàlla bañ mu di ko moytu bu jafee mu tàggat ci boppam te xam ne ak njullit du waxi kese ak njullit ay jëf la ak njullit ay pas-pas la ak ay jëf mu ngoog loolu nañ ci bàyyi xel bu baax bu ko defee jullit bu jigéen ci wàllu dundinam ci wàllu culture am daa war a xam ne islam dafa ñëw ngir discipliner ngir organiser dund nit ki yàlla mi nga xam ne moo sàkk xanaa moo moom yàlla mi sàkk moomul yàlla moonu sàkk moonu moom kon nag sañ naa tëral yoon yu mu bëgg nu jaaral ci dund gi yàlla moomee moo ko tëral yàlla moom mu nga xam ne moo am xam-xam bu toll ne sàkk nit xanaa am na xam-xam bu toll ne xam li mën a may nit bonheur waaw yàlla moomu kon moom mooy ci gën a xam sunuy sunuy masaale sunuy intérêt yàllaa ñu ko gën a xam ñii bëgg a yàlla yàlla la sunu kanam bëgg fay taxaw taxawaay yàlla bëgg wax ne ñoom ñoo gën a xam yàlla lu jub dañuy fen waxuñu dëgg yàlla kenn xamewul ni moom lu jub lu jub yàlla kenn xamewul ni moom intérêt nit ñi kon nag la yàlla tëral na nañ ko def loolee mooy la baax ab jullit day xam loolu tey day gëm loolu ab jullit day xam ni dafa am ay aaya alquran ak i ahadis yu ñëw aju ci vie culturelle jullit bi aju ci ñi ngay lekke ñi ngay naane ñi ngay ñi ngay ñi ngay solo ak ñi ngay dunde lépp ab jullit bu jigéen daa naka doona bu góor ba daa war a xam ne adduna bii ñëw nu fi ngir dëkk dañ fee ñëw ngir mu nekk ay tool wala chantier boo xam ne dañ fiy jëf dañ fiy jëf ëllëg lu nu yóbbu àjjana mbaa nu jëf lu nu yóbbu àllaax ah safara yàlla na yàlla musul safara adduna bii du kër du kër chantier la ab tool la ak gëti la ndax xam ngeen gëti bu fekkee tool ya daa sori bu béykat ba ruujee ba satal day waaj bu tawee ba bàq tooy mu jël aslëf ci ay néegam ak aslëf ci ay bagaasam yóbbu ca àll ba pour bëgg faa am ñetti weer ñeenti weer pour gëti loolu moom la ñuy wax gëti pour mbay su mbay ma ñoree nu muy def day gàddu la mu fa am ci gerte ak ci dugub ak ci mboq daal di indi ci kër gi du loolu la day adduna si ak gëti la waaye fa nu dëkk mooy allaaxira wa innaha la jannatun abadan aw la naarun abada allaaxira àjjana ba faw mbaa safara ba faw yal na yàlla musal ci safara waaye nag àllaaxira lu koy yóbbu nit àjjana kenn ku nekk ci nun wut na lu koy yóbbu àjjana lu bokkut ak li yàlla waxoon yàlla moom moo sàkk àjjana moo sàkk safara mooy sàkk yow nit ki li mu wax ne mooy tax mu yóbbu la àjjana mooy nga jaar ci ay ndigalam liy tax mu yóbbu la safara mooy nga jag ci ay ndigalam moom yàlla subhaanahu wa taala kon nag ab jullit day gëm loolu te xam ko jullit bu jigéen bi day xam ne àdduna sii kon boog du kër gu ñu dëkk yàlla nee na tabaraka alladi biyadihi almulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا yàlla nee na tedd na te màgg na buur gi nga xam ne moo moom nguur gi tey itam mooy ki man lépp koo kii mooy ki sàkk dund ak dee pour nattu benn bis damaa am gan gan gi daal am sama kër ñaari fan julliwul benn yoon benn yoon julliwul may waxtaan ak moom xale yi di waxtaan ak moom mu ne daal moom daal julli daal daf koy dafa dafa metti ci moom bisimilah jam waaw moom dafa metti ci moom ah te kat ñoo jullit la su su jullit la yore ma ne ko ah sëñ bi yëf yi dana waa lu tax mu di waxtaan di waxtaan ba mu yàgg mu jékki-jékki laaj ma ay laaj yu bari ba gannaaw boo ko leer la jullit li ci nekk ci ay njëriñ ak li ci nekk ci ay ñàkk jërëf li nekk ci ay tooñ mu jékki-jékki ne ma waaw suñu borom yàlla moom lu tax mu sàkk nit ñi indi leen fi ñu ngi fi sonn subhaanallah subhaanallah foofu la xam-xam ba toll foofu la xel mi toll laaj boobu moom la philosophie di laaj te tontu li réer leen moo sànq Karl Marx moo sànq Jean Paul Sartre moo sànq féministes yi dañoo yaakaar ne dund gi amul but amul raison ah kay yàlla tontu na laaj boobu laaj boobu nga xam ne moo jaaxal philosophie ba tax ñu weddi yàlla tontu na ko suutul mulki nee na xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amala yàlla moo sàkk dund ak dee yàlla moo sàkk dund indi nu fi ñun nit ñi nu war fee am diir bi yàlla bëgg nu am ko fi pour def te bàyyi def li yàlla bëgg mbaa def li yàlla bañ bàyyi li yàlla bëgg mbaa bàyyi li yàlla bañ dañ fiy nekk ab diir dund fi di jëf ak di bàyyi li ñuy def malaaka yi di ko bind mu nekk ab nattu kon dund gi ab nattu la ab nattu la yàlla dañuy seet ba xam daanu def lu rafetam déet seet ba xam ñii def lu rafet ana ku ci gën a rafet la ay jëf bu àllaaxiraa yàlla yóbbu nu nag te fu nu dëkk foofu mu kërug teraanga la àllaaxira kërug teraanga la ndare ku jadd ku jadd ndigalal buur nag yaa gis na laa yóbbu kaso kaso sans borom yàlla mooy naari jahannama ku jadd alxuraan ak sunna bu àllaaxiraa ñu yóbbu naari jahannama kenn du ko faj waaye adduna bii kon dëkkunu fi tey ñëw nu fi ngirug neen dañ fee ñëw ngir jaar ci ndigal yàlla bàyyi ay tereem loolu doon sabab suñu yóbbu àjjana ëllëg mbaa nu ñàkk cee jaar loolu doon sabab suñu yóbbu safara ëllëg loolu mooy sabab bi tax yàlla sàkk dund ak dee mooy li tax nu ëndi nu fi mooy li jaaxal waa jooju ba tax muy laajte kon boog loolu li muy tekki mooy maanaam dund gii moo munu ko mun nu koo doxale nu nu bëgg bàyyi li yàlla bëgg féministes yi nga xam ne dañoo wax ne nañu yemale góor ak jigéen ci miraas ñi nga xam ne dañoo wax ne nañuy émanciper la femme émancipation de la femme ñooñu gëmuñu àllaaxira bu ñu gëmoon àllaaxira xam ne yemale góor ak jigéen wala émancipation de la femme lu ci dëppoowul ak ndigal yàlla bu àllaaxira fitna lay doon suñ ko gëmul duñu wax loolu waaye ñoom gëmuñu ko ñooñu dañoo yaakaar ne dund gi fii la tàmbalee te boo dee fa la yem jeex na ab jul bu jigéen nag def loolu ab jul bu jigéen day gëm yàlla gëm àllaaxira xam ne li muy def ci àdduna da koy yóbbu àjjana ëllëg mbaa mu yóbbu ko safara ëllëg yal na yàlla musul ci safara bu ko defee kon ki nga xam ne kii daa jàdd ndigalal yàlla yàlla nee na tilka xududullah wa man yataadda xudud allahi faqad zalama nafsa nee na tere li yàlla ak i dayoom mi ngi noonu ay ndigalam ak i tereem jaar leen ci te tënku leen ci ku ko jalgati nag tooñ nga sa bopp tooñ nga sa bopp mooy maanaam lan andil nga sababu fitna yi adduna ndaxte mbooleem ñi jaarul ci yoonu yàlla ñoo tax adduna bi naqari ñoo tax fitna yi bari ak problème yi crise yu bari yi gis ngeen ko crise yi ñaata lañu fépp foo dem am na crise crise am ngeen crise économique de crise de l'éducation crise spirituelle ñaata xati crise adduna bi lépp léegi soppi ko doon ay crise ndax ñàkk a jaar bu ñu ñàkk a jaar ci li yàlla bëgg kon ñoo tooñ suñu bopp ñu jaarul ci yàlla bëgg tooñ nañu seen bopp tooñ nañu nit ñi te bu àllaaxiraa it daañu xam ne tooñ nañu yàlla ndax sàkkuñu woon seen bopp yàllaa leen sàkkoon yàlla bi leen sàkkee daa am lu mu leen doon doye xëy yàlla doon doye defuñu ca dara ba dara booloo jox kon tooñ nañu yàlla kon boog bu àllaaxiraa ñu dem safara gannaaw bu ñu dundee safaraw adduna fi yal nañu ci yàlla musal yal nañu yàlla dimbali ba nu mën a dellu ci loxo suñu tënkute mbokki jullit yu jigéen ñi jullit bu jigéen day xam ne am na ay lekkin ay naanin am na aw xewin ngentewin dëjin ceetiin am na aw soluwin ak aw tuwalituwin am na ay defin ci nuyoo ak ci wax ak ci jëf am na xeetu jaxasowin diggante góor ak jigéen yoo xam ne yàlla da cee wàcc ay ayaati ahadis nun nu woyofal ayaat yooyu ak ahadis yooyee woyofal ko jàdd ndigalal yàlla te fekk noo ko tey ba noppi naan ay jullit lañu loolu kat dug njullit loolu dug njullit ab jullit mooy muslim muslim lu muy tekki muslim mooy ku jëble muslim baatu muslim baatu arab la boo xam ne li muy tekk mooy ku jébbale loo jébbale ak koo ko jébbal xam ngeen ne baatu muslim ëmb na ak jébbale ak ki jébbale ak li mu jébbale ak ki mu ko jébbal ki jébbale mooy yow jullit bi li nga jébbale mooy sa dund gi lépp sa dund gi lépp koo ko jébbal yàlla yàlla bu nee defal da ngay def bu nee bàyyil da ngay bàyyi loolu mooy am jullit yàlla bu nee na góor ak jigéen ñem yow jullit bi da ngay nangu ndax da ngaa jébbale sa dund yàlla yàlla bu nee góor ak jigéen bu ñu yem da ngay nangu ndax da ngaa jébal sa dund yàlla ki nga xam ne ci moom nee na alquran dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a lan corriger dañ ko wax astaghfirullah dañ ko war a defaraat ndax dafa dëng loolu la ñuy wax dégg naa ñooñ jébal leen seen dund gi yàlla déedéet kuñ ko jébal waaye daa am ñoo xam ne seenu dund dañ ko jébal seen bakkan ak seen bànneex topp ci bakkan bi rek lu mu ne noonu la da nga ne noonu la am ñoo xam ne seen dund gi dañ ko jébbal yàlla fu yàlla jaalu fa fala am na nag ñoo xam ne ñoom seen dund dañ ko jébbal tubaab bi waaw tubaab bi xool leen koo xam ne lu jóge Europe rek looloo baax lu jóge Europe looloo baax waaw bu bu teyee américains yi wax lii boo légee anglais yi wax leneen lu ñu wax rek nga topp ci ñoom doonag al toppe rek yow koy jébbalu nga waaye nag jébbalu woo ci yàlla waaw kuy jébbalooti jébbalul ci yàlla te roy sunnas yoneen bu xam ba yi la waaye jébbalu ci tubaab tubaab bi naa la émancipé tubaab bi naa la góor jigéen yem tubaab bi naa la dégg naa am naa jenn gan bëgg dem mu ne ma jigéen ñi nee nañu yi góor yilif gu mu yilif kër gi sax daa war a deñ nee na dégg naa foofu ngeen toll léegi góor ñi seen doon guñ doon chef de famille sax daa war a deñ bi maanaam góor bi mu takkee jabar am ay doom ndaw si ak jëkkëram ak doom yi foofu kuy kilifa gi ah góor gi ñu ne jigéen ñi dañoo bëgg a préparer benn projet de loi yóbbu ko assemblée nationale pour daal góor ñi bañ leen a wax dañoo yilif ah moo ñuy fuñ jëm ak nun ñii fuñ jëm ak nun fuñ jëm ak ñun mooy taal kër gi safara sanu yàlla doon doon doon waaj bëgg ba laa xalaat ñu dem sa safara jooju lañ bëgg indi léegi mooy bëgg indi léegi mu fekk lu ci kaw suuf xam ngeen naka la boo xamee ni conflit am na diggante góor ñi jigéen ñi te loolu am na ba noppi daanaka am na ba noppi conflit am na diggante jëkkër ak jabar jabar ji nee daa bëgg a libéré wu daa bëgg émancipé wu day bañ léegi bañkat la jabar ji léegi feebar ngeen ni jigéen ñi léegi ay prolétaire lañu te nag comme si daa waxee ay prolétaire lañu dañuy dañuy bañ léegi dañoo bëgg daal dañ doon ay député dañ doon ay ministre loolu doyul jigéen ñi nag ay président loolu doyul jigéen ñi dañoo bëgg nekk jëkkër léegi waaw nañ nekk jëkkër bo nañ nekk jëkkër waaye léegi daal ndaw si moo war a chef kër gi waaw ndaw si moo war a chef kër gi bëre boobu su tàmbalee am diggante góor ak jigéen wuute day bari ci famille ci ci ci kër gi ci maison conjugale lu waa ji wax ndaw si weddi lu ndaw si wax waa ji weddi lu ndaw lu waa ji wax ndaw si ne kii damaa bëgg moom daa norul ma émancipé norul ma libéré waaye maa lànk du fi amee ndaw si itam lu mu wax jëkk ji ne kii damaa bëgg a yab dafa maa bëgg moom waaye maa lànk du fi amee mu daal nekk bëre maison conjugale yàlla mi ngi koo sosoon ci sakkan ci mawadda ci rahma féministes yi danañ ko soppi taal ko mu nekk safara kër goo xam ne gi léegi bëre la ak xëccoo kenn ku ne di woote kilifteef kenn ku ne na maa war a yilif maa war a moom féministes yi lii la ñu nar naari jahannama lañu nar a indil ci kaw suuf ñu tàmbal di ko lakk léegi boo laaxiraa ñu ñu doo dem safara wu mag wa yow féministe bi maa ngi lay xamal ne yaa ngi woo nit ñi ci ñu lakk safaraw naari jahannama ci àdduna yow féministe bi maa ngi lay xamal ne boo tuugul bu àllaaxira doo fa fekk dara lu dul safar am na benn journaliste boobu jullit boobu jullit bu ma doon ndox naa ma nit ñi ko yóbbu safara nit ñi ngeen di yóbbu safara ne dana yóbbu nit ñi safara ah ma mën koo mën a yóbbu safara yóbbu ma kenn safara kenn laa mënta yóbbu safara ak neexoon ñëpp jaar ci kitaab ak sunna ndax ñëpp dem àjjana nit ki day mooy yóbbu boppam safara waaw nit ki mooy yóbbu boppam safara kanaan nag Abdou Aziz Touré ngi yóbbu nit ñi safara kooka xam ngeen luy waxam dëgg-dëgg la mu am dëgg-dëgg mooy daa gëmul alquran su gëmoon ni alquran nee na ku def nangam dem safara kon kay du wet ji loola naan Abdou Aziz pour moom Abdou Aziz rek mooy wax luy tax a dem safara waaye safara yu du dëgg sax kon safara yu du dëgg sax kon loolu ñuy wax nañ ci bàyyi xel Abdou Aziz mënut a yóbbu kenn safara ab intégriste ndem intégriste ngeen di wax mënut a yóbbu kenn safara safara yàllaa ko moom ajjana yàllaa ko moom waaye nag yàlla kat dina am ñu yóbbu safara dina am kat yàlla kat moo ne la am la anna jahannama min al jinnati wan naasi ajmain yàlla nee na waat naa ne danaa duy naari jahannama ba mu fees dellat ay nit ak jinne yàlla nanu yàlla musal ci ñuy dem safara am na luy tey dem safara luy tey dem safara wut ab ustaaz wala sëriñ bu neex ak jamono bu yombal diine ji mu naa la mees dagan na xeesal dagan na nu yoon jigéen jox ko loxo aayul dañoo dañoo ëppal rek loolu mooy tax a dem àjjana mooy tax a mucc ci safara déedéet lii tax a dem àjjana mooy jaar ci ndigal yàlla lii tax a mucc ci safara mooy jaar ci ndigal yàlla yal na yàlla may tawfiq nu jaar ci ndigal yàlla jin bu jigéen bi daal day xam ni moomul boppam dundam jii da ko jébbal yàlla yàllaa ko moom li ko ci yàlla sant da koy def lim ko ci tere da koy bàyyi na xam ne jin bu jigéen bi na xam ne yàlla da koo tere ay mbir ci vie culturelle am na jéem a xam mbir yooyee te ba ko te jéem a jaar fi yàlla bëgg ku fi jaar jil bi jigéen di masalan na xam ne yàlla da koo tere muy génn aw yaramam ci biti ne julit ñu waa Sénégal waa Sénégal nañu xijaab waa Sénégal nañu muur seen yaram yi yile te sëriñ su baax si nañu woo seen jabar yi ak seen doom yu jigéen yeeg seen sœur yi waxtaana leen ci diine sant leen ñuy xijaab ndax waa Sénégal roy leen ci lii nga xam ne moo xew ci biir Ndakaaru boo génnee soo bëggee da gis boo jigéen soo bëggee da nga ko gis jigéen joo xam ne ji day wut ab sipp dangal ko ba mu ne niit niitiral sol mbubb mu xoo boo xam ne day potale weeni potale njëkkaay yi surtout di gannaaw bu mu dangee ba potale njëkkaay yi mu xar ko boole ci moo jaa moo jaa lii lu ngeen ci jublu moo jaa lii yoonu àjjana la ak yoonu safara moo jaa lii mooy ndax moo ndax mooy tax yàlla yàlla sàkk nu lii mat naa wax damaa jëlale loolu waaye ñi nga xam ne dañuy sol ay garab yu yaraam ñi nga xam ne dañuy bàyyi seen loosu ci biti ñi nga xam ne ñi duñu muur seen yaram yi mukk duñu musóoru boo waxee ñu ne ah waaye loolu ibaad yi ko moom am na luy ibaad ana koy ibaad